voilà salam alaykoum euh, nos amis internautes euh, de la télévision Prestige TV Nous sommes ici qui cité de Gorgui de euh, buntu Ousmane Sonko leader du parti Passif. qui ngeen nak euh, situation bi actuellement ni mu il y a une très forte mobilisation des militants et militantes donc du parti passif bu Ousmane Sonko ngeen koy donc en direct devant donc sa domicile Suisse donc au quartier donc Cité Gorgui à Dakar actuellement il y a une très forte mobilisation des militants euh, du euh, parti Bidi Passif qui nous connaît aussi Nous avons apporté donc euh, son soutien au président du parti Passif de Ousmane Sonko Nous koy suivre actuellement en direct sur la télévision Prestige TV Nous avons suivre également via donc YouTube avec la plateforme Ousmane Sonko donc avons apporté ñi apporter soutien ci son leader bu parti qui euh, bii di feu. Euh, suivre actuellement qui nous connaît que rek euh, réaction qui également voilà. senegal sama bakkan day ne ci suuf Ousmane Sonko ne ci kaw ne ci kaso bi ma dem mbàqee tëdd loolu mooy mën a am mais Ousmane ko ci biir man ne ci biti asaay doom loolu mënut a am waay asaay doom loolu mënul nekk ah asaay doom Ousmane Sonko ci biir Ibrahima Gueye ci biti non mënul am mënul am Ousmane Sonko Moustapha Cissé Lo nee na yéen doxaankat yi ministres yi ñooy doxaankat yi cànga ji yéenay ministres Moustapha Cissé yoroon na la Moustapha Cissé yoroon na doxaankat yi yéen cagat yéen ay doxaankat yi ngeen doog a bëgg a ji Ousmane ne ko dafa mu yoole ah yow ñu ngi la jox réew moo war a lijjanti soxlay réew mi yow Macky Sall war a wax affaire coronavirus bi président Afrique yëpp ñu ngi taxaw kenn ku ne fas yéene noo génnee ci situation yi ngay dund ah ñëpp lijjanti affaire développement yow ngay xeex ay naan da ngay tëj Ousmane Sonko da ngay tëj Karim Wade da ngay tëj Khalifa Sall Ousmane Sonko ay bakkan la koy tëj ci kaso Ousmane Sonko ay bakkan yu bëri lay laaj dégg nga Ousmane Sonko pour Sénégal la Ousmane Sonko du pour kenn Ousmane Sonko pour patrimoine Sénégal la ay bakkan lay laaj yu bëri bu fekkee ne da ngaa bëgg jàmm yaa ngi noonu Ousmane Sonko ngi noonu boo bëggul jàmm yaa ngi noonu nee nga Sénégal yow ragaloo xam nga ay mos ay ay ay morso yu xonq xam nga mos morso yu xonq Ousmane Sonko du morso bu xonq Macky Sall Ousmane Sonko du ko dañ laa jox réew mi pour nga liggéey liggéey soxla réew mi yow président Macky Sall joxuñ la ko pour ngay xeex ci toolay Afrique Sénégal bàyyi buñ salaamaaleykum nga daw ci Macron naan ay banque mondiale baal ma ak banque mondiale petit ji petit gaa xaalis bi ngay lépp def ko ci askan wi suñu doom yi fajuwuñ suñ juróomi téeméeri doom dee nañ ci gaal yi barki démb juróomi téeméeri dees ay Sénégal yi juróomi téeméeri ay xale yu ndaw dee ci biir gaal gi sa làmmiñ yëkkatiwu ko ci yow Macky Sall te bu nit dee woon tey benn français dem France loolu foo teg kilifa diine nag la di wax kilifa bu artuut dina artu kilifa bu artuut dina artu artu moo gën artu te bis bu ñu demee ba ba dëkk bi tàkk ba tàkk bu boobaa lillaay wa rasuuli nañu bàyyi may sàll bu dund ñi dee dee Sénégal am jàmm mooy Ousmane Sonko na ko bàyyi nit asgor doo ko jiiñ njaaloo alay sallahu bi akamil hakimina képp kuy atte muy pëlëkëlër muy gendarmerie muy ku mën a doon booy atte na nga atte dëgg ku attewul dëgg bu yamal xeyamee danañ takk say tànk nga atte wal li nga atte woon alquran nee na wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaa'ika humul kaafiruuna képp ku atte yoo xam nii atte woo atte bu dëgg bu yàlla wàccee ab yéefar nga te nag walakum fil qisaas hayaatun voilà ngeen di continuer nak euh, di ko gis noonu ñenn nak euh, ci euh, militant yu parti passef ñu ci bari ñew nañu rek fi nga xamne rek moom modi di cité kër góor gi ci keuru ki nga xamne rek moo di le président Ousmane Sonko leader du parti passef ngir li nga xamne rek mo tuké ci liñu tek ci ndodam te ñom ñu naqarlu ko ñaawlu ko bu baax a baax loole nag tax na ñu bari tay ci militant yu ñew def une def un déplacement ñew fekk ci Ousmane Sonko ci këram militant yi nag nañ partout parce que sank waxna ko gis nañ ño xam dañu joggé depuis ba Thiès ñëw rek ngir euh, soutenir euh, seen leader euh, di Ousmane Sonko gis nañ également des leaders de l'opposition ño xam aussi ñomit naka nonu def nañu ay message de soutien à l'endroit donc de le leader le président Ousmane Sonko lool nak moy situation bi nga xam donc mom moo fi xew. Euh, ngeen di gis euh, noonu donc euh, ci image yi ak kaddu yi nga xam ne ñi ngi koy yëkk dañuy dem rek jël ay quelques réactions ñu xam. on les amul kilifa dina amul dara ay waxtaan néeg amul loolu bu ñu neexee nañ ñëw jàpp suñu néeg man unité 21 laa dëkk parcelle ci Brioche Dorée na leer bu ñu neexee nañ ñëw jàpp Macky Sall s'il prend comme moom mooy fii royaume la fii du royaume. moom du fii lañ ko jàpp muy jooy mu daw ci kilifa diine yi bëgg a sonal nit ñi loolu dafay amee policiers yi c'est des personnes comme nous dañoo war ay gannaay ñun yor ñu ay gannaay il faut ñu téye ou bien ñu rey leen ñaari affaire la adduna bi ala kuli xaal amul dul dee ñëpp ay dee moom moom moom Macky Sall day dee mu neex ko mu naqari ko day dee bu yaakaaree moom muy affaire yooyu loolu duñ ci continuer ci loolu nañ may nit ñi jàmm ñu continuer mais jàpp nit ñi xoolal di leen xoxotal guddeeg bëccëg. lan ngeen fas yéene moom bu ragalee dem élection na wax nit ñi. du ma def élection ba 2024 nit ñi xam. lan lan ngeen fas yéene def dañ koy ñaari mandat la moom moo doon wax fii ay affaire kabar ay kabar ay kabar. def élection sax ko dul may. ñu bëgg a interpréter ay nit ñi ay loi la fii ñëpp jàng nañ boo jàngul mesure voilà loolu la ñu am pour wax.

ñi nga xam ne tey euh, ñoo toog teg tuuma yi ci euh, ki nga xam ne donc moom moo di euh, leader bu parti passé. Ousmane Sonko nag en personne moom nee na du ji ci convocation bi loole nag fa mu ko teg nag mooy di immunité parlementaire en tant que député ci pencum ndaw réew mi foofee la ko teg lu ci mën di am waxtu wi ñu ko convoqué woon jot na mais ba tey daal police ñaari oto jot nañ fi ñëw sànq mais li nga xam ne donc moom la ñu wax ne moo leen taxoon a jóg moo di ne dañu ñëwoon rek pour def donc le constat euh, ci moment bi nga donc les rassemblements dañ koy téré euh, ndax li nga xamne rek modi contexte bi ñu nek muy Covid 19. n'empêche que nak les militants sont euh, regroupés ils sont mobilisés autour donc de leur leader autour donc du président Ousmane Sonko leader du parti Passif, mais également tay mun wax chez le chef de l'opposition ndax li nga xamne rek mo deuxième di kenn ci Idrissa Seck dem rejoindre donc le gouvernement du euh, président Macky Sall donc tay euh, mën nañu ne Ousmane Sonko c'est le seul leader euh, bo xam tay mën nañ ko jappé comme chef de l'opposition lu ci mën di am dal waxtu wi ñu ko convoqué won jotna mais ba tay gis ngeen nak les gardes corps ñoo nek noonu ñi nek rek ci buntu kërëm fi nga xam ne rek mom modi buntu kër Ousmane Sonko gis ngeen nak une très forte mobilisation. moom moo fi ñëw euh, bi mu ñëwee nag militants yi dañu sangu euh, ñi nga xam ne donc ñoom ñoo di police gis ngeen nag euh, situation bi noonu la demee ngeen koy suivre actuellement gars yi nag dañ ko dàq ne ko dañu fi jógee gis ngeen nag ci image noonu mbokk yi nga xam ne ñu